Adam doole doole doole dóor eh eh eh dóor mu dal dóor mu dal dóor mu daanu dóor jël dóor jël dóor dóor eh eh eh jàppante doorante c'est la bataille sociologique Reug Reug loolu arrangé woon na mooy yéen eh eh Raglos bu eh Raglos mi lu muy def nii eh eh eh daan nañu ko mënatul daan nañu ko